pour gendarme yi arrêté ko pour ni ko président day jàll na ba président jàll mu continuer yoonam mu bañ ni day forcer barrage bi commencé. bonjour Sénégal na ngeen def tey la samedi 19 octobre 2024 j'espère que tey moom xool yi féex na bu baax a baax a baax alors dama leen di liixal communiqué bi nga xam ne gouvernement bi moo ko def. ci déplacement bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem na ko defi tey fële ca Bakel. def nañ tamit euh, le point situation bi nga xamante ne ne ci la ñu nekk ci mesure d'urgence yi am foofu noonu donc ñu ngi ko daté tey 19 octobre 2024 ñu ngi wax ne président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, quitté na fi nga xam ne moo di Kédougou tey dem ca Bakel ngir euh, mën a taxawu wu tamit population yi nga xam ne inondation yi solo na leen lool lool ñu ne visite boobu nag du def lu dul pour mottali euh, jéego yi nga xamante ne ne état du Sénégal def na ko ngir mën a dimbali Euh, milliers de familles yi nga xamante ne ne euh, jéye bi dal na ci seen kaw ñu ne démb 18 octobre 2024 li euh, nga xamante ne mooy ndox bi di jóge ci fleuve Sénégal di ñëw dafa gën a yàq li nga xamante ne ne moo di ay dëkkuwaay yooyu lu toll ci quarante 44 sites ci région de Matam lu toll ci 51 villages yoo xamante ne ci région de Saint-Louis lañ nekk ñu ne euh, ci département wu Tambacounda ak département de Bakel euh, foofu tamit dafa am ay yàqu-yàqu yu bari yu ñu fa am ñu ne boo additionné lépp daal lu toll ci 774 euh, ay kër ay dëkkuwaay ay famille boo compté nit yi daal mot na 55 600 personnes Euh, yoo xamante ne ni mbir yi daf leen laal directement am na tamit mille deux hectares ay tool donc plus de mille hectares ay tool yoo xamante ne ne euh, dañoo inondé ñu ne li ci yàqu nag boo xoolee li ci ëpp presque xaaj bi yépp ay toolu kaani la li ci topp ci yàqu-yàqu yi ay toolu euh, ceeb la yeneen yi tamit ay toolu mbokk la voilà ñu ne ci yàqu-yàqu yi loolu la ñu ne nag loolu waxal gouvernement bi ci si débloqué na lu toll ci huit milliards de francs CFA ngir mën a financer mesure d'urgence yi nga xam ne dañ koo jël ci taxawaay bi noonu noonu. ñu ne tamit état du Sénégal ci njiitalu ministre de l'intérieur mobilisé nañ ministère des forces armées ministère de la santé. ministère de l'hydraulique et de l'assainissement ak tamit ay autorités territoriales euh, et décentralisées ci zone yooyu noonu yépp nga xamante ne ne yàqu-yàqu yi bëri na fa ñu ne armée bi ak euh, commissariat bi nga xamante ne moo yore wàllum sécurité alimentaire bi yóbbu nañ lu tollu ci cinq cent tonnes euh, ci ay lu ñu soxla pour lekk voilà yóbbu nañ fa tamit ay tente ay matelas ay moustiquaires ak bépp produit boo xam ne jàpp nañ ne euh, lu ñu soxla la daar daar foofu noonu ñu ne ci Bakel yóbbu nañ fa cent 150 tonnes ceeb. ak un million de litres ndox boo xamante ne ni mën nañ ko naan wala toggee kook yooyu ñu daal di ko fay tasaare ñu ne am na hôpital militaire niveau un boo xamante ne ne euh, teg nañ ko fa ngir ñu mën a euh, consulter ñi nga xamante ne ne vraiment ñoo ko soxla population yu touché yi euh, ñu ne tamit am na ay patrouille de sécurité yoo xamante ne ne mu ngi foofu noonu ngir ñu mën a protéger sites yi nga xamante ne ne mooy dëkkuwaay yi nga xam ne ne moom leen leen defalagum pour ñu mën cee nekk ñu mën leen cee sécuriser. ñu ne tamit état du Sénégal taxaw na temm ngir mën a euh, defal li nga xamante ne ne moo di ay dëkkuwaay yoo xamante ne pour le moment dinañ fa mën a nekk. Euh, dinañu teg ay digue de protection euh, ak ay yoon yoo xamante ne ne dinañ mën a anticiper inondation yi nga xam ne ne dafay ñëwaat ndaxte xam nañ ne honnêtement euh, mbir mi euh, calmé gul daal jeexagul voilà ñu ne euh, dañuy tabaxaat tamit li nga xamante ne moo di pont yi nga xam ne mooy pont wu laal yi ak pont wu ñaw leen taanu ak tamit yeneen ni infrastructure yoo xamante ne ne dafa yàqu jamono jii nii ñu ngi xool nu ñu koy mën a réparer. ñu ngi terminé di wax ne ne président ba si wu Diomaye Diakhar fay waxtaan nag population yi. wax na leen ne euh, dinañ nekk ci seen wet mu ngi woo tamit yeneen sénégalais yépp ngir nañu taxaw ci wetu ñi nga xamante ne ñoo nekk dund euh, situation yu difficile yi jamono ji gouvernement bi tamit mobilisé wu na ngir ñu mën a def intervention yu ñu war a def Euh, selon soxla yi nga xamante ne ne ñoom population yi am nañ ko donc communiqué bii nii ki nga xamante ne mooy porte parole du gouvernement bi di ministre amadu Moustapha njekk Saxé di ministre formation professionnelle moom moo def communiqué bi mu bëggoon leen ko tekki voilà donc président de la république euh, tey jóge na fi nga xam ne moo di Bakel ñibbisiwaat na euh, fi nga xam ne moo di dakaar dem na fi nga xam ne moo di ci aéroport bi comme ni ngeen ko déggee woon sànq ci meeting ba monsieur Euh, le président du PASTEF premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko doon leen wax ne président war na dem aéroport pour accueillir suñu ay compatriotes yoo xam ne ne état du Sénégal moo décidé ne daf leen di rapatrier parce que nekkatuñu woon en sécurité foofu nga xamante ne ni moo di ci Liban donc président la République ànd na ak ministre euh, des affaires étrangères et de l'intégration africaine euh, ñoom ñaar ñu daal di leen di teeru voilà ñu ne def nañu mobilisation bu gaaw ñoom ñi nga xamante ne ñooy ay doomu Sénégal te nekkoon foofu ci Liban ñu mën leen a andiwaat ñu mën a fexe ba ñu nekk ci jàmm ak salaam président la république wax na ci message bu leen doon wax ñoom di waxaale yeneen sénégalais yépp ne Sénégal dina taxaw ci wetu ay doomam yépp yi nga xamante ne ne soxla nañu ñu taxawu leen soxla nañu tamit euh, xëy na ñu delloo si leen fii euh, ñu mën a nekk si seen réew nekk si jàmm ak salaam voilà li laa leen bëggoon wax tey ci journée wu président la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye Si le président est à Bakel, nous, on ne va pas être à Bakel. C'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. Dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel.